Ndiaye ku ne làmb li nga ne mystique ce que laa jàpp mystiquement bu baax. contre bu baax bu baax. ban mbër la làmb la woon. xam xam nga tey am na yoo xam na nii boo ko waxee ci télévision day doy waar wax dëgg yàlla boo ko waxee day doy waar mais làmb làmb galaaj dañ lay jàpp bu baax léeg-léeg tamit galaj dina la jàpp nga daan mbër galaaj da lay jàpp. ba nga xam ne yow jàpp na la mais yow yaay daan da ngay dem daan gala da lay jàpp moom leneen tey doo daan doo niil da ngay daanu for force parce que yow yow sa da nga xam ne da xam ne tey jii moom ça ne va pas dara doxul naa ne saison bi mhm. saa yi ñu ngi coow naa ne mooy laa ah. ma ah. yooyu bu taxawee day day suul Balla Gaye Modou de. lu tax nga loolu. leer naa ñu laa la wax Ama Baldé Modou Lô. waaw nu mu koy suulee. non bu taxee maanaam premier combat Balla Gaye Modou ba ñi mu woon bës si monde bi. wala nga jël combat sun sun suñ papa yi comme ni ñu ko doon waxee Mbaye Guèye Robert wala Mbaye Guèye Papa Kane affaire yooyu ni mu doon defee bës. Mhm. Modou Lô Ama bu taxawee lamb yëpp day fay. je le jure. parce que lamb jooju li ko waral mooy ñoom ñaa dañoo bokk génération Modou Lô Ama Baldé dañoo bëri ndoom bopat ñu bëri combat nommé ñoom ñaar Modou Lo daan amaa Baldé dugg si arène def fooy falaam daan ay nataangoom yëpp bëri ay magam tamit daan ba tey mu nekk au sommet nekk roi des arènes kon dèjà mbër moom mooy suñu xalifa di ko nuyu boobu noonu xam nga mais Ama tamit dafa nekk mbër moo xam ne dafa ñëw ak dooleem maanaam dafa ñëw tamit brûle-feu bi brûle-feu mooy lan lijjantiwuma la sa des gaspillé laa fam teg ko bëreeg ay moromam tamit daan leen. commencé bëre si grand yi xañ na tamit li ko gën a gàllankoor mooy moom lii li li ko empêché si làmb ba tey jii nii eggul au sommet mooy ñi muy teggi moo bëri maanaam Ama moo gën a néew ay adversaire si làmb parce que Ama tey jii boo génnee Gris Bordeaux génne Tapha Tine génne Bombardier amul fu mu jëm ñoom war a bëre bëri naa ñoom pare ay ñoom guy gi xañ na moo guy gi seen combat revanche daaxoon na mais amatul ku mu war a bëreel yow mu nekk si làmb ji doo bëri Ama doo bëri de doo bëreeg Balla Gaye doo bëreeg Sa Thiès waa Pikine dama leen a jëlale foo jëm moom ay ay adversaire am ñoo bëriwu si làmb waaw non combat boobu bu taxawee waxuma la combat la mais fa la làmb yam boo bëggee dégg-dëgg Ama Baldé Modou Lô tey bu taxawoon nga taxaw bunt stade ni bii cinquante mille laay jaayee close couverte découverte day fees dell boo taxawee ni dama ko def per per view code bi 10 000 francs la koy jënd. ci côté lamb laay wax bu dee bëri ñoom ñaar ku ne mën na ko. Mhm. a mhm. mhm. waaw parce que kenn ku si daa mën a daan moromam bu waxante dëgg Ama Baldé mën naa daan Modou Lô bu baax Modou Lô mën naa daan Ama Baldé bu baax bu dee si favori Modou mooy favori si kaw amaa Baldé si lamb parce que tamit Ama Baldé amul lu mu ëppale Modou Lô si lamb d'accord mais nag. bidugu mbagg boo gis bidugu euh, dox li naa nu ñu koy wax sax xamal maanaam waaw koo gis xol bi magasin moo ci nekk donc Ama Baldé Issa dafa toll foofu noonu te fi Modou Lo toll ci làmb Issa fa mu tolloon bi ñuy bëri Issa Pouye Issa Ama Baldé fa la toll mooy combat bi dama koy daan bokk si gars yi Issa bi moo tax combat boobu bu taxoon tey di nga gis làmb ju yéeme ci biir làmb ji ci bëre ba di nga gis lu yéeme lool parce que tamit du yomb si kenn si ñoom ñaar jamais plus du grand waaw jërëjëf waa Ahlou people. waaw waa 221 people maa ngi leen di sant bu leen gërëm di nuyu nag waa Colobane. surtout di nuyu sama mafia bi ñi nga xam ni ñoom ñooy représente fii nii. xam ku si mel sama jigéen bii di Diarra Boussa di nuyu Fass Séri mbay di nuyu nag sama doomu ndey sama kàpp bu mag bi Khadim Fall Maxu Cheikh Amar borom borom Corée xam Pambay ñoxo giri sama ndajaay Mbay Wàdd sama président fant club Cheikh bu Baara Ndiaye Mbay Diané Boy Gueye parisien xam nga képp koo xam ne ñu ngi bëgg Baara Ndiaye sama sama grand frère sama grand frère boo xam ne dafa ma jàppale muy nekk nii tax dama jàppale bu baax xam nga du ñu nag Mbay Mële séeri séeri maman wax dëgg yàlla koo tamit xam nga sama gaayen la boroom Géejawaay ñoom ñëpp dañ may jàppale. dégg nga ne Colobane gépp aw ma seen fay di nuyu sama président. Abbas Ndoye gërëm nga ba pare Ousmane Ndoye maire Fass Gueule Tapée Colobane ak Modibo Ndiaye euh, président ASC Fass président ASC Colobane mun Ndoye grand Abdourahmane di ñaanal tamit ñëpp koo xam ne yaay dem gàmmu Tiwaawan parce que tamit ñu ngi ci mawlut ñun ay julit lan avant tout d'abord ñun ay musulman lañ yoo xam te ni dañuy pratiquer donc ñu ngi ñaanal ñëpp si barke Seydina Mohamed dem ci bisimilahi rahmaani rahim ñëw ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu jëm Kaolack ñu jëm Tivaouane ñi jëm Touba partout dans le monde kenn ku ne foo man di dem rek da ngay dem pour màggal gudd Seydina Mohamed. ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xam te ñaan ko ci ay ngëneel yàlla defal ñu ko doon nañu sutura te Sénégal yàlla gën fee def jàmm ba li nuy dégg ci yeneen pays mu musal ñu si mais yoon bi ñu ñëw bu ñu ko wàccul li liy raam day dugg si ñàkk bi te bu duggee du génn. waaw donc nag li may wax rek maa ngi nuyu waa Colobane gépp di nuyu tamit sama yaay. di ko ñaan yàlla buux di ko ñaan yàlla bu baax a baax a baax a baax yaay Asso Diarra yaay Mbaye ak Ali seex yàlla yi sama seex yooyu noonu donc di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér parce que day yaay joo xamante nii yaay ju gëm boppam ñun mu nekk soon référence ñun man moo personnel dafa nekk sama référence parce que comme li ma wax léegi rek ñun nëmmuñu daxaw di ñaan parce que moom moo tax dañ ko gis si moom fa famem am na macha allah mais taxul xaar kenn da ñëw dox da nga koy fekk mu toog ngay kër di jox ko mais du ñëw ni la may ma barke Seydina Mohamed du tal lu lii moo tax may wax bu fekkoon day taxaw di ñaan suba ñun dañoo mënoon ñàkk jom dem di ñaani mais billahi wallahi taala amul liggéey bu mu def ba mango ñoree nga mooy loolu lu suppame lu am maire bi takku sërëm donc nag ñu nga ñaan yàlla ñu nag réussir rek ba nga xam ne coono yi muy dund nii xam nga ñu màgg dem ba tekki lool donc na ñu ngi wàññi coono yi mais ba tey li mu bëgg carrément amaguñ ko. te ñu ngi ñaan yàlla am ko ba fekke ko mu fekke ko di nuyu waa Thiès tamit xama di nuy waa Thiès bu baax di leen bëgg parce que tamit Thiès tamit xama ñu ngi nuyu soxna si bu baax a baax a baax a baax waaw di nuyu madame bu baax a baax a baax xam nga madame Thiaw je bi my baby di nuyu sama mag bu baax Anta Gueye di nuy sama doom baay Pape Gueye Xaadim géey ak Yacine di la nuyu baax di nuyu mafia bi ñëpp di sant ñëpp Maïssa Gueye sant yàlla boutique ñu koy gërëm bu baax di la nuyu nag yéen ñi nga xam ne yéen waaye deux cent vingt et un people parce que tamit am na solo trop li ngeen def nii c'est très important parce que yéen a ngi béy seen waar fekk nit si biir place jël ko def si li nga si war a def teg ko si kii bi ñëpp di ko seetaan partout daal le monde ñooñu amuñu seen fay te fi nga ko teg foofu la dañ leen ñaana ñaanal yàlla yàlla suturaal leen ngeen dem ba bokk si meilleure émission yëpp lépp lu ngeen si def daal man koo leen nekk benn te xam ni petit à petit l'oiseau fait son nid lépp day ñëw si kattanu suñu borom te maa ngi koy ñaanal si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi kontaan naa si yéen ñett ñi ñëpp ak ñi seen ginnaaw ñëpp di leen yàlla rek réussite totale man loolu laa leen ñaanal bu baax a baax a baax di sant di gërëm Prison loo fan Harmony I am sorry